ñaan yéen jàkk yi nga xam ci biir dëkk bi leen nekk jàkk bu ne xale ya fa nekk nan fexe doxalal mbaraama seen bopp lii mooy doxal nag pour lu dul dox kon nag ñi wax yeneen daayira yi ci desit nag ne rek ah aduna wala yeneen déedéet lii kuréel bii liggéeyul Fata liggéeyul Moustapha Mbow seen bopp la ñuy liggéeyal parce que Mbàkke leen dëkk mbaar mbaar nii ñi taxawal nii taxawaloon ko benn jumaa seen bopp lañ fii ci buntu mu doon loo xam ne nii bu leen ci yàlla defalee sutura kenn du tànk kon jàpp dana daayira yëpp yi ñëw bokk kenn moomale kenn adara baa ngi nii ñëpp kon nag na ñépp na ñëpp jàpp na ñëpp dox su mënoon nag kon bu ne daayira bu ne ak jàkk bu ne ak jumaa bu ne ci biir dëkk bi te añu ci xadara tijaan yi bi ñi ñi ñi def benn kuréel boo xam ne ni day seere xadara yi xadara yi dox normal te nag soo sooraale adara yi di mat waxtu ndax bu dul loolu rek bu dajee ba jógee fa ñun am yoolu adara yoolu sikkar la ñu am yoolu sikkar nag nee naa leen taxut kenn jógee sa kër fii bu fekkee yoolu moo tax nga jógee sa kër fi bii doogee sa kër nga def téeméer astafurlah wala téeméer laay laay la am sa yoolu sikkar waaye xadaratu juma yoolu xadaratu juma bokkut ak yoolu sikkar te obligatoire day mat waxtu bu teg dara wala waxtu nit loolu nan koy sóoraale waaye xale yi soobu leen ci xadara bi. waxtu woo xam ne ubbi beeg tëj bi di ci bokk. waxtu woo xam ne ubbi bi di ci bokk loolu di ñaan waaye bu leen gis rek kenn ñenn dugg benn kuréel dugg ci benn affaire ñu taxaw déedéet ndax bu échecgee xale yu mbàkk yëpp a ñu échecgee bu doxee dañuy wax rek kuréelu mbàkk yi. ah bala ñoo guddal ndax tey dañoo bëgg nit ñi yeewi nit ñi la jaay wax léegi à part jël ko ñoom insha allahu ñoo ngi leen di jégalu di leen baal àq wa salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh ak imam Alhaaji Yaxya di leen ñaanal yàlla guddal seenu fan ba ñu yàgg ñoo jiite ñun waa Mbàkke nag ñu am ci pàcc bu rëy muy Mbàkke ak li ko wër ñu ngi nam na bi nag ndaxte Mbàkke fépp jëlee nekk ak kër mag ñu baax ñi lal nañ fa mbalaan ma ba jot nañoo génn ci village bi kon nag li li tax mun ne mooy képp koo xamante ne taalibu seex nga muy mag ak ndaw nga ñëw jéem ñoo jàppale ci liggéey bii liggéey bii rek mooy li ñu ñor parce que am na ko ñoo xamante ne bañ fa demee seeni ndaw xamuñu luy xadaratul jumaa fekk nañ fa ay taalibu seex yoo xamante ne seen taalibu seex ñemuñ koo fësal mais mbalaan yooyu moo leen dellu si kon nag lii ñun duñu ko xeet beneen bi ci des pour ma mooy ñi ngi sant ñëpp ñi ci jàpp ku ci ne action daara ji ak Tamsir Ndaw mi nga xamante ne moo jiite daayira Cheikh Ahmad Tidiane moom sax duñ ko sant ndaxte mbir mi daanaka mbiram la parce que ku xam euh, jumaa ji ngeen nga fi Tamsir Ndaw ndaxte ñu fi xadara ñu bëri dañ ko fay fekk mais fekku leen fi bien vrai que ne ci dëkk bi la du dëkk kon nañ ko ñaanal yàlla musal ko ci cat yàlla kàttanal ko bu baax a baax a baax beneen bi ci des mooy am naaw xadara tiijaan yamuñ ci xadara kese nee nañ bu ñu sonoon jumaa ji nga xamante ne fi la ñuy jullee it bu imaam di waxtaan kenn du fi mën a toog ndax naaju tàng ñu bari buñ sëlmalee dañuy daw beneen bi ci def ajuma am na ñoo xamante ne dañuy julli ba ci kanamu jumaa ji jiitu imaam ñu ne woon ci sa weewu tànk mënoon nañ defi programme bu rëy jëli ay kilifa indi leen bu ñu paree ñu dem ñu ñaanalante mais ñu ne bay ci sa wewu tànk nañu xool li ñu war a def ci suñu dëkk bii ñu def ko ba pare soog a mën a def leneen ñu ne kon mbaar mi moo gën a nekk priorité mooy fii toog di fi xadra di fi defee ay gàmm di fi defee ay conférence ñu ne nañ fi def mbaar moo xamante ne danañ ci julli ay it di fi def suñuy programme plan bi nag mu ngi nii mbaar mu mel nii lañ fi bëgg a def waaw yéen ñëpp gis ngeen ko léegi nag lii tax mu mu jàll faaw ñu jàpp ci liggéey am naam xadre tijaan ndaxte wàññi boo gis ci benn lay commencé mais niñ ciy jàppee mooy da ngay ñëw bokk ci kuréelu am naam xadre tijaan carte de membre bi 2000 francs la chaque fin du mois nga cotiser 1000 francs ku ci nekk xam nañ ne lii suñuy jafe-jafe la woon buñ daan am rajo yu wee wee lu la lañ daan am mais góorgóorlu nañ ba am suñuy rajo képp kuy taalibe Cheikh bëgg am programme ci dëkk bi rajo yi disponible la ñoo jël ko takk ko fu la neex basan yi ñu lal ñun ñoo ko moom mbokku taalibe moo ñu ko commandeel indil ñu ko pour xadara bi rek képp kuy taalibe si boo ko soxlaa basan yi say basan léegi nag li ñuy gën a leeral mooy euh, xam naa ne après Ahmad dana ko gën a jàllale pour mu gën a leer ndaxte bu ñuy jàllee danañ woote réunion bu mag ci jumaa ji woo kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi ñu taxawal commission boo xamante ne ñoom ñoo yor liggéeyu mbaar mi xam naa ne maa ngi jéggalu ci kaddu yi maa ngi guddal te bu ma guddalee mën naa wax loo xamante ne naka su dul noonu ndax damaa moom la mënewut ay wax beneen bi ci des ñu ngi sant kuréel yi fi ñëw bi ci jiital waa action daara yi nii la ñu dëkkee ak ñun fépp laa làmbalaande xadara dañuy taxaw yor suñu sécurité ñooñu aar gi ñuy aar yàlla moo leen dàq aar yàlla leen yàlla beneen bi ci des am na kuréel gu fi ñëwoon muy almalikiya Mor Khoudia nekk ci COP bi mi ngi ni Tamba la jóge te bés bi moo ko indi te loolu ndawut kon nag nañ leen ñaanal ñoom ñëpp. Euh, mbooloo bi ñuy wax ci dëkk bi yàlla na ko yàlla jaarale fii asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi mu leen mu leen nuyu nuyoo boo xam ne gi boo xam dafa tukkee ci lu gën a sori ci suñu xol nekk nag lu du mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mu ne lii li neelu suñu boroom rekk moo ko def ni mu ko defalee Cheikh. ni mu ko defalee Cheikhuna Tidiane radiyallahu wala ay xel yu xereñ yi xalaat la. dana dox. dana dox. waaye du sori. waaye du sori. waaye lii nag. waaye lii nag. Cheikhuna Tidiane. Cheikhuna Tidiane radiyallahu taala anhu. da koo doon ci maamam Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. moo tax mu sax. dañuy ñaan kay. dañuy ñaan wax ni kay wax kay. kaay dundal sa bopp. kaay dundal sa bopp. ci tariqa bi. waaye tariqa bi. waaye tariqa ba noppi. dund te day leeral. te day leeral. te day dimbale. te dimbale. ku ci yàlla. bu ñuy woote kay. bu ñuy woote kay. dañuy wax diw. kaay dundal sa bopp. ci biir dariqa bi. waaye dariqa bi waaye dariqa bi moom. dafa am ay amaana. dafa dem dafa am am kóolute bu rëy ak sécurité bu rëy. bu jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. bokk na ci bokk na ci. du dem ba fay mukk déedéet waxtu wu ne. dëkk boo dem. ñu ngi fay jolli. te du fay ba mukk. ndaxte garanti la. boo xam ne bii. Seexuna Tijaani radiyallahu taala am na ko. mu jële ko ci maamam Seydina Muhammad sallallahu alayhi te muy tariqa boo xam ne itam. la la cay boole. mooy dañ la koy jox. kala ko jox. mu jox ko. ba ci cheikhuna tijaani radiallahu taala anhu moo tax seex ne ana rajulu haada tariqa man maay góoru tariqa bii bu ñu ñëpp xamoon li nekk ci tariqa bi. danañ njëkkante jëm. danañ njëkkante jëm ci tariqa bi. ndax tariqa bi. ndax tariqa bi. bu ñu lalee malaan bi ba noppi. jumaa ji ci jumaa ji. bu ñu laaj ne. bu ñu laaj ne. kii kan moo ko jox kii kan moo ko jox tariqa bi déedéet. kii fan la ko jëlee déedéet. wala kee fan la ko jëlee déedéet. loolu nag la koy maye. mooy dañ koo jox Cheikh na Tidiane. yàlla nañ ko muurloo. bi jaahi rasulillah. jërë ngeen jëf. yéen xale yi. yàlla na leen yàlla màggal. yàlla na leen yàlla booleel boppam ci tariqa bi. ndax moo ciy boole ku ko neex. ndax moom moo ciy boole ku ko neex. yàlla nañu ko neex mu boole ñu. yàlla kon nañu ko neex ñun mu jël ñu boole ñu si tariqa bi. yàlla na ko yàlla dëgëral. ndax nii ku ko am. ñàkkatoo dara ñàkkatoo dara. kon nag yàlla nañu yàlla jàppale. daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. yàlla ubbil ñu ay wërsëg yu yaatu. ñu mën a jaamoo suñu borom. mbokk man koo jokk mun cee jokk mbokk gi ci darajay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ bi benn la sëñ bi benn la muy Cheikhu na Tijaani gannaaw loolu ay taalibe yu ëppante ay ay ay pasteef li dale gannaaw seex waaye gannaaw seex ba fa mu yem ba fa mu yem day ñaan day ñaan yàlla na ko yàlla def taalibe seex ñun tam ñu ngi ñaan loolu ñun tamit ñu ngi ñaan loolu suñ takkusaan bi suñ takkusaan bi tey yàlla nañu yàlla def ay